di nuyu waa Sénégal yëpp di leen bal wax di leen baal di ñaan suñu boroom subhaanahu wa mu baal ñu nangu ñu suñu koor ma ñu fekke déwén ak or yu bëree bëree bëri koor yu bëri euh, defe naa ne koor gi jaar na ci yoon sant suñu boroom sant di suñu borom di wax ni tey julli gi neex na waaye xutba bi neex na ndax sëñ Muntaxa Mbàkke xalifa général des mourides yàlla na fa yàgg te wér euh, li wax euh, yóbbante bataaxal bi mu jox imaam euh, dafa dafa am solo ndax dafa dafa ko teg ci ci jàmm xam ngeen ni jàmm moom dafa am solo ci lislaam xam nga ni jàmm moom la ñu sàkku moom mooy àjjana xam ngeen euh, ci turu àjjana yi ah daaru salaam daf ci am solo donc wane ne salaam te man may te man may waa daaru salaam nag di taalibe daaru salaam taalibe sëñ Tuba ak Cheikh Adda borom dërëm ak ngërëm di wax rek li imam bi wax dafa am solo ci jàmm waaye dañ bëgg jàmm waay ci la lépp ku jàmm amul kenn tal liggéey kenn tal sa julli ci réew nag dañ war a bëggante te bu ñu bëggantee jàmm am kon jàmm rek am solo ku ñëw fii bëgg fii xañ jàmm indi fitna yàlla dafa rëbb fitna nit fitna yàlla def ko rëbb ku gëmul yàlla nag bu la neex nga nekk nit fitna mais ku gëm yàlla xam ne ni fitna boroomam yàlla rëbb na jàmm la yàlla bëgg bi ci topp mu ñaari poñ yu xam dafa xaw a ànd sëriñ bi wax ko mu am solo mu wax ci lool muy xam-xam ak ak yar yar ak xam-xam xam-xam dañ ko war a wut surtout ci xale yi ndax xam-xam boo ko amee kenn du la mën a manipuler kenn du la mën a jëriñoo kenn du la mën a nax da ngay nekk nit doo nekk bàyyi ma xam-xam mooy wutale nit ak bàyyi boo ko ñàkkee da la yóbbu ci ñàkk yar ndax mënuloo am xam-xam bi ba pare am problème yar ndax yar mooy xam nooy toogee nooy jëfee nooy waxee sa digganteeg sa nawle noo war a mel mu wax loolu yëpp bàyyi jëw bàyyi def lu bon jiital lu baax jiital yiw kon daal tey wax ji mooy ku xool déglu li imam wax di nga bëgg sa bopp di nga bëgg réew di bëgg sa réew ba lépp lu koy lor doo ci bokk di nga wuti xam-xam pour ràññee xàmmee bala ñu lay nax ndax ñàkk xam li mu waral bëri na olof jaay nee na ñàkk xam li war a bëri la kon ku xam doo ku ñuy nax ku xam doo ku ñuy jël di ko jëfandikoo comme limon di ko presse pare sànni ko xam nga xale yi ñu dee wala dem di rayante wala di taal luñ lu mu leen di jëriñ lan lañ ciy am dara lu may bàkkaar lu may musiba ëllëg kon nañ yiw daal Sénégal réew bu civilisé la loolu lañ ko xamalee loolu lañ ko yàgg réew boo xam ne réew ni ñu bëggante ñu soppante di demalante la solidarité ah waaye du réew ay bañante ay rayante ay taal ay taal ay yàq taal kër jàmbur yàq bien kër yëfu jàmbur yoo xam ne yow mënoo ko ko jox yow mi koy taal ba kër yàq xam nga ne yow mënoo koo defar xam nga ne yow mënoo koo jox kooku xam nga ne yow mënoo koo réparé waaye loo ci jublu ndax amoo xam-xam loo ci jublu ndax dof nga loo ci jublu ndax xëy na sa bopp bi dañ koo naan sa yuur gi dañ koo naan boo amoon xam-xam kenn naan sa yuur da def yëfu nit dañu bàyyi yëfu dof xam ngeen li am Touba masu fee am kan moo mas a tudd tur ci ci jumaa Touba même sëñ Touba mi moom jumaa ji kenn du ko fa tudd parce que kër yàlla la nu fi turee turu jàmbur ci biir jumaa sëñ Touba xam xale yooyu dañoo sànku dañ dimbale xale yi jàngal leen waay jox leen xam-xam teg leen ci yoon wi waaye bañ a rek def ay ay ay def ay ay kii rek ay ay objet ñuy utiliser rek ñuy dee di yàq di def fu dof ndax amuñu xam-xam xale yi waaye seet leen ci mag ñu baax ñi mag ñi yar leen xale yi Sénégal benn bopp la kenn mën ko xar buñ ko taalee fuñ jëm fu ñu dëkkati lu ñu amati kuy jox lu ñu lekk lu ñu naan bala nga naan naam ne fa bu ñu reyantee ba jeex ku fi des dañ bëgg jàmm ba déwén incha allah. ki nga xam ne mooy le président de la république fële ca grande mosquée bu Dakar mu woote li nga xam ne mooy dialogue ndax loolu mooy li ci jamono bi. président yàgg na woote dialogue dëkk ndax loolu moo jig Sénégal mais dialogue day fekk am ñëpp bëgg ko mënoo forcer kenn ci dialogue am na xam ne duñu ay nitu jàmm nitu ay nitu fitna lañu président on na leen ko faale ñu ko ñu bëgg a jàmm di leen dem wax moom. yàgg nañoo wax ak moom ndax président dafa am mission dañ ko dénk réew mi ëllëg mu war a rendre compte ëllëg dana rendre compte suñu borom ni mu sàmmee woon njaboot gi kon day bëgg njaboot gi nekk benn réew mi jëm kanam mais am na ñoo xam ne ñoom bëgguñ Sénégal bëgguñ jàmm bu wootee sax dañ ko sax déglu waaye may ñaan ko jëpp déglu nag parce que mooy njiiti réew mi te bëgg na jàmm ñu ànd moom defal defar jàmm doxal jàmm